mbëggeel ni ku dundul du ko seede dafay féexal xol da lay war yoon nga xam fi nga féete mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete bu dee tur loo bëgg naa àtte ma tëj ma ci sa xol nangu naa li ma wan a tax ma dudd sama àdduna benn bi ah bëgg naa xam ne koo xam ne balaa moo mën a defar ndékki rek 1 heure demi jot wala wala midi demi jot mën ngeen gaaw seen wala xëy ngeen war a defar seen ndékki li 8 heures 8 war na fekk ngeen ndékki ba pare wala yéen def na. fii daal ngeen di nekk nii. ah man de su loo nekk. naa leen def na. alhamdulilah kay. dinañ ci jaaxal nga naan def. ah bañ salaatu wala jub. ma ne oto oto oto bu neex bi. waaw naa oto yeer bi raw ma. déedéet moo tax nga raajee kay dama tëj raajee. yéen a ngi si jaamu mbaa. ñu ngi si jaamu kay. naka waa dëkk ba nag. ñu ngi fa. ñu ngi si jaamu mbaa. ñu ngi si jaamu mbaa di la laaj nag gëj nañ laa gis gëj a gis sa loxo nag. ah ah xam nga rek. ñëw ñëw ñëw réewum taa rek si liggéey bi la liggéey bi la quoi liggéey bi la. waaw gën a ñëw xam nga rek ah ñëw ñëw réewum taa

yéen ci jàmm ñëpp a ngi ci jàmm. soxna Mady ma ne damaa fekkoon si yoon bi ah maa ngi def. après kii soxna ma ngeen def. maa ngi def waaw baax na yaay bul guddee nag. waaw waaw loolu la ñoom loolu la de. yow dafay nga laajte moom naaj bi daa tàng ah, dara. yow ak jëlal bagage bi nga yóbbu ci léegi rek mu noppalu. jëlal bagage bi nga doon wax ko yow ba ne ko waa ah, su ma def sa waay ñoom. Ah, Pape na nga def bagage yi de maa ngi ñëw def marché rek ñoom bu fekkee ne bagage yi Dominic! Dominic! Daar gaan we de tuin toch? Tracy, mo na yung kanalo Eric. Opo. Ito kai ba ta na gawa yau. Ya to shi ya ta ce. Na yi ta da ke ta ta Na na ka na. Ba yau kai ba da nara wadara. Na na sai yau nara wadara dubu fi. Wani mata da yamma yi samu. Ah yau da ragan gaskiya. A filin ta ngini. Filo uke na ndaka ba. Bilo ndaka ba mom. Filo ngala ne range ku. Ah filo mom kare ya ta ne hausa ya dumu. Ai wa kuma lota. Ya. Lai da ni. ngeen afi ngeen tànn ceeb nii. afi dana tànn ceebam bi. ku ko di tànn trop daal li naa tuuti. mën naa dugg si biir néegam bi tëdd yaa nga nekk fii naan yaa ngi tànn ceeb. loolu du yoon yow war ngaa xoolaat sa bopp jàppale rek amul jàppale de amul jàppale. amul jàppale de yow manga dangaa war a xam ne manga am na yu bari yoo xam ne waroo koo def. moom du jéem a tànnal boppam ceeb. loolu dëgg la waaye xam nga kii la xale la moom bu ñëwee si kër fekk danga koy teete te moom dafa yéex si toog instant boo ko bàyyee fii ba ngoon jot balaa yow bu ma yéex du moo sëy si moo war a togg añ bi ba mu neex yàq yaa ngi fon toogal fii nag xam nga kii si kër gi nag xam nga yow yaay mooy la nangu baax na loolu xanaa nag bàjje nag loolu xamu ji nga seen xam de soo dof dof loo nag sa wujju bii da lay génnee kër gi nag faax man mii rek si jéem toogal fii nag commencé taani ceeb nga commencé tey aca man de beneen ne dama am kii de damaa ñëw ne ku jàpp nag mosuma woon a xam ne nag lii nga tax a jóg foofu pour nangu sama nijaay moo moo ko tax a jóg. kii de maa koy génne kër si biti. bëgg laa tax na ma jugee dëkk ba ba fii. xam naa ne yow da nga yàgg nekk sama xarit. yàggu ma fi de wante naa nag lim naa ma la wax na leer. li nga wax naa si bàyyi xel bu baax a baax. man nag maa moom ci kër gi. man nag maa ngi ñëw dugg si biir yéen dañ samay nelaw. comme fii moom dafa seen. xam nga ne bàjjen lu ma wax dëgg boo génnee ma kër gi man fu ma doon lu bëgg ci kër gi waaye loolu du mën nekk kii maa ngi koy lijjanti. de dëkk ba une heure fekk nañu añ ba rafet li ngeen xam nga dëkk ba ak fii moom. ah loolu la ah man sax loolu indiwuma fi. Ah. sa wujj bi si kër gi seetlu nga ko tànn. kat moom xëy. waaw yii moom xëy dafa daal lu baax. man de luñ naan ah, yàgguma fi tey jii laa fi ñëw de wante lim naan yëpp xam naa ko. eh moom xëy daal la naan lu baax. yow moom sa xel mi moom ba tey. sa xel mi moom dama dama si ne mel ni rakkam bu bokkal ndey ak baay. ji nga sa wujj bi. sëriñ li ñu naan rek la ba tey dama uuf comme rakam bu mbokkal ndey ak baay jàmm ak salaam rek la sekk ak man tamit nga kii gënoo ma koo xam ndax moo la njëkk si kër te man kër gi yàgg naa faa ñëw di ko fi fekk man xam naa loolu depuis ba nga duggee nag ba léegi amul jàmm sëriñ yoo sëriñ xam na ko defal attention nag su ma lay wax di nga li ngay gis mu lay tànnal ay ceeb di ñëw si waañ bi di la xoolal nii yëpp ah. affaire de saafara rek la fii saafara xam nga ne yow moom moom moo ne ma yow mii mënoo am doom. ku la wax ko te boo xoolee nag dana am coppet sa jëkkër ji xam nga dañ ne ñaaree xaritu jëkkëram bu yeboon na nga def dara. kon mu xëy di mi mi xëy di ma wàllu ba xëy mooy yow kii. Patrice la li ñu naan Patrice mooy xam ne man ak moom la man nag bëgg la moo tax mu jugee dëkk ba ba fii ñëw wax si la. waaw baax na dara man la fiy fekk. <laughs> man rek waa baax na nu ñëwee rek mën naa koo ñëwee. suñu bàjjen li mu wax fii tam waaye baax na mu xëy fii la may fekk man ak moom rek kër gi dara du seet. man la xamuma sax lu may def xamuma ko. wax naa kuy daal nëbb boo mandee feeñ waaye dëgg la. cent francs yoo doon sama cin ni pour lan la. waaye yow kay nga naan waxee man nii. yow ma waa déglu ma. man mën naa dugg si waa bi bëgg naan fekk bi la bi amul ndox ma si di doon. waaw waxal cent francs nga doon def sama cin li. yow ku bon nga man nag yeneen ma wax yow ma ñëw. yow si yow. yow boo tooma yow lu ma nekk ci kër yow nakata yaa ngi góor eh, sama tànk. Eh. ma ñëw ba si yow romb sama ndey du ma du ma sukk ko dara ñëw ba si yow. xam nga yow a xam ne yow. xam nga yow a eh, xam ne yow. yow ma ñëw ci kër gi ba léegi biiroo bootoo waaw yow yow gàddee la ko yow yow nag yow yaa lay wax waaw waaw mënu ko ka won ca commencement ba yow yow nga ma ka won wax mu ma bëgg mo rom ma ni xolal rom rom ma ba mu metti ci yow neex yow ma reew yow yow. bu fekkee ne gars yi mën naa dugg si waaye mi ngeen mën a war a. yaa ma si biir fekk na ma si biir. ma si biir. yéen ni Ndeye génn kër gi war a war a yow ma war kër nga nekk fii naan da a xool la. gis nga kii dafa xamal ba dafa waxoo ko may kan ci na xam waxoo ko yow man gis nga ne gars yi kii damaa dugg ci waañ bi génn di naan fekk bi naan bi amul ndox ma génn di ko duy maa damaa def saako si ci bi xaw ma. ki ma la laa liggéey si moom waaw sans frais la ci doon def. maa génn fii nii tase moom si bu tuwaan mu yore bituweel. yow yow yow yow. waaw yéen yéen yéen yéen yéen yéen may fondoo wala. man dem ah, ko ci def ma yàgg loo kaaw may laam-laamee naan um xaalis du def lii waaye moo gën a yées ku yées. yow ah li ma doon bu ñam di jaay ne léegi na day jeex. kii lu mu wax Mati waxu la ko Mati waxu ko dara moom moo Mati naa ko gis nga kii ba ma ñëwee si kër gi ba léegi dama koo teg palaasam su may togg añ mu ngi ca waañ ba moo may raxasal moo may baleel ah ni ma ñàkk fu lu moo jàppee ko rak lu na la def bu lan la la jël man daal kii daal man xamaa xamul sax man affaire man nu ko dikkee kii léegi dafa soppeeku dafa saa waaye nag soppeeku waaye yow mooy yow doo noppi moom la yow ah waaw gis nga nu mu def nii noonu la ma def booy wax moom du ma di ma raj man na maa ci kër gi danga ko xool nu muy demee maa ngi moom nga ne yow mëtti mu wax yow mëtti moom fekk fële may raxas mune ne ma umu xeeri sa la bëgg gënë kër gi mu day dem ci ay sëriñ sëriñ ñoo sëriñ xam na ko seen maam ba maamaatu maam ñi ci ay sëriñ lañ xam man mi yow mi xam nga ma dem ma wax sama secret mu ne wax ma dina ko man mënuma am doom lépp seytane da jaxasse bëgg ma gënë kër gi way fi luma fi duggal génnew ma fi ah nit bu la wolo bo xala ne secret kay lay dem waaye nijaay dangaa gëm ki kii kër gi way bay ma ko lax nit sax yow way ah kon yéen ñaar bu mo déggé seen wax ma nga mëti mo ñoo wax leen yéen gëm mëti ñes gu ma Kafin ya man yasgumu. Ya no o oh, te no mi. Pila ya no ka bata. Ya ya ya tal na. Oh. Ba oh. nga defee li nga def ba pare yaay na la. Am la la. Loo wax ki Loo wax ki la la. Yow yaa ngi may tooñ de. Di nag mag ma du tax yam ma de. Ñi la lay war a wax. Ñi dama yëg dara ci ñoom. Kii mën naa koo fekk muy tànn ci muy aaw góor këram mu ñaawal mi. ma ne ko di nga saraki ji noo ko mën a jàppee jàppee ko ndax am wujj bu mel ni kan yomb. waaye xam naa ma ay bër yu boole ay kii lan la wax yow. saa te wax a gën a gaaw yow ba te fekk ma si waañ bi nga di umu xëy sëriñ ñoo sëriñ xam nañ ko. maama maamaati maamam fa maamam yu jógee ñoom ñëpp ay sëriñ lañ. yow yow nga ne umu xëy yow nga ne umu xëy yow ñëw ba si yow. ne man mënu ma am doom. jamina allahu akbar ba ma fekkee ci waa ji ba ma fekkee fi ma koy détaillé fii lan nga ma wax. dama ne la. waaw sa rakk ji noo ko mën a uufee uufee ndax am wuju bu mel ni yombul na. soppi wax a gën a gaaw. ah ñoo ma ñëw fekk ma fi ma toog nga ne ma sa rakk ji da laa bëgg a génne kër geeg. yow yooyu man man noonu waxee wu ma ko woon yow rafetal doomu moom la si dugal di nga yow caama yow laa. yow nag moom xaaral ji nga ji bu leen toog man waxee wu ma woon affaire bi. bu nu bu nu ma caama bu nu ma caamee yow yow yow ku bon la foog naa yow ku baax la ah ne nga jugoo dëkk ba leneen lu ñëw sama kër pour yow nag yow nag. yow nag yow nag yow yow laay yow gis nga nit bu la waxtee dara bu dem si laaj ko ba xam moo ko wax wala waxoo balaa nga ñëw dal si kaw ndax dégg nga ma yow nag yow nag si yow laa jëm gis nga li nga def nii boo ko dugg àjjana loolu waaye amul jàpp moo li xamal lu may xamal nag. xamal lu may xamal nag kër gi door fanaan. aywa mën nga jël sa place bi foofu sa biir. aywa dinaa bañ a def dinaa bañ a def mi nga ñu bëggoon a. waaye yow waaye yow xaaral xaaral ma ñëw. yow moom xam naa ne nga am. ay waay benn ah yow xam nga xamoon ni nga mel. yow damay dëkk ba lan laay wax yow ko barab yow de yow. ñaar benn fan nga fi am boo fi amee weer ba xamuñu. te a ba am na suñ kër gi nii. wala lii am na ba tey. teel. kii de bu ko leeral sax na dem. benn fan nga fi am benn suur nga fi am bu ko tas sama kër boo xamoon weer kon kon waa kon yóbbu tas na teel. jàppal jàppal si saa yi nga nga abal ma sama kër dugal. ah lii de gàcce la su ma demee moom li ma def fii rek laay def. ah dama nag. lii. ah dama rek waaye booy booy booy jaagale daf ñu doo dugg àjjana. gis nga yi ñaan yéen laay waxal gis ngeen nag ñii ñii ñun lañ mel ñoom ñëpp a yem kër gu neex la ñu bañ gis kër gu am jàmm am salaam man nag ma kër nag jàmm laa ak salaam li ma bëgg mooy ngeen joxante loxo. bàyyi may baal ak xam nga rek seetaan. baal naa la lool mhm, jaraaw. waaw. bëgg jàmm ak salaam sama kër loolu a bëgg gis nit nag bu lay waxatee dara balaa ngeen ma tëpp pët di daal da ngay tam si nit ku leen wax dara ngeen laaj ko pare ba xam moo ko wala waxoo ndax dégg ngeen ma. dëgg la waaw ana ko ay tey. tey ay. yaa ay waaw loo ah, togg tey. teewul ndar bu ne mu. Ah, waaw après nga jàmm yekk waay may si biir après damay dalluwaay. waaw waaw laa bëgg nag jàmm salaam laa bëgg nag. ah rakk gis nga nii la de. nit ñi moom ñu ànd la ñuy bañ bu ñu ba taaxal leen te loolu moom waroo ko nangu bu kenn nangu buñ nangu te bu kenn dox suñu diggante ak yow dégg nga dama la que ñëwee nekk si jaar dégg nga. waaw dégg moom mooy loolu rek. mu nga ni métti mi koo waxoon ku ma waxoon ma ba tasaare gi nii. ma weddi ko. loolu moom dëgg la moom. waaw waaye yéen ñi moom amee moom day bàyyi la calle.